tay serigne bi li xep ci jamm lako wek jamm nak mom moy li nga xamni mom mo la lepp ndax ay doomu adama buñu mëne nek nekk fu mëne taxaw tay di julli dañoo nek ci jamm ak salam kon bu imam bi defé khutbam ci jamm khalifa bi ñew waxat ci jamm ñun mënu ñu luddul rafetul loolu mënuñu it lu dul ñaan yalla limu ñaan yalla nangu ko deug dëgg neex yalla it senegal yalla may ñu jamm am nañ ci jamm bu ñu nekk ci aduna bu xawa dëkk yëpp a jaxasoo ci àdduna bi ba ci li ñu wër waaye bu yàlla dimbale Sénégal di mucc ci loolu yëpp mënuñu lu dul ñaan yàlla loolu continuer donc euh, te li mu bu mënee continuer loolu mooy tax président Macky Sall la nga xam ne aussi mu ngi koy liggéey ci Sénégal ci plan sénégalais yàlla may ko mu mën ko mottali ndax jàmm jiitu lépp bu ñu amul jàmm rek daanaka du ñu mën def dara kon li imaam bi wax daanaka moom moolal lépp yal nañu yàlla defal jàmm yal na yàlla dégg li mu ñaan.